Fallou Gueye man ak Fallou yow ki yow ki yow jël boo ñëwee jël boo ñëwee jël boo ñëwee bu leen ñafe ñafal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 man Wally Seck benn bu sama waykat sa waykat Taba Mbaye Taba Mbaye waaw ak kan Wally Seck waaw Wally Seck ak kan bu sama gis nañ ne heure bu heure bu Keba te tëggee ñëw lan moo tax man ah man ñu ko man ñu koy def ba Fallou man ah Kéba sax gisee Fallou jàppal Fallou téyal Fallou am xaalis Fallou waaw ah, Nguuda Ndiaye Nguuda Nguuda Ndiaye Nguuda Nguuda moom gis nga gëlëm. Seydou Gueye na koy gërëm yaayam yaayam guddi ñaay na koy gërëm Fasek na koy gërëm waaw sama yaay na koy gërëm. mais ça veut dire que moom daf jàppale. na uh-huh. koy gërëm Dias yëpp gis na koy gërëm waaw. lan ñoo tëri rek lan ñoo tëri rek la faral lan ñoo tëri rek la gëm. mais Fall wala kii. waaw wala kii la gëm. ba maas ba sekk waaw. bas mbaay yëpp. gis uh-huh. nga sama xarit. ñëpp say waay lañ. waaw yow xarit ñëpp nga Fallou yow daañu ndax yow da ngaa baax mais Fallou dafa ne dafa mel ne da ngaa am xaalis ndax da ngaa leer de. du du mosuma wékkat. kii Bombali. Bambali Seck. waaw Bambali Seck. waaw. mu sama woykat. waaw moom tam sa woykat la. ñu ko Taba uh-huh. moom yow sama xarit la. yow yaay Fallou Sénégal. yow ñëpp la bëgg Fallou. yow ñëpp la bëgg mais Fallou. waaw ma ne. waaw xanaa da am xaalis. waaw. yor nga. waaw. Uh-huh. mais Fallou ñu gis sa mbër Balla Gaye. waaw mu daan victoire bu naaj te boobu ba tey waxoo ci noo ko gisee. waaw kontaan naa. sa Balla Gaye. kontaan nga sa Balla Gaye. waaw. man man ma. waaw ma. jour combat hmm. ma. xoo. xoo. Balla Gaye. waaw xoo. kii la kii la boo ñëwee jël boo ñëwee jël. boo ñaa mais Fallou boo ñaa de. déedéet. mais boo ñaa mën na de. moom Fallou man. waaw gis ko Balla Gaye. waaw hmm, gis ko ba gis ko. ba gis si dina ma Fallou man. waaw ak Balla uh-huh. na ko salkal sargal. da ngay sargal Balla waaw. tànn biir bu rëy laa koy may. tànn biir bu rëy eh Fallou loolu dina rëy de. waaw loolu foo koy defee. ah. fan nga koy defee. tànn biir bu rëy bi. tali la jëm ñaar tali. ñaar tali nga koy defee. waaw nag Balla Gaye am na combat moom tam. moom ak Boy Niang lan ngay wax ci loolu. lan ngay wax Balla Gaye. Balla Gaye. waaw. abit arbitre bi mu sifflé. mu sifflé mu lii oh, deux minutes. ah waaw fu ñëwul bu doomu kopp. mais Fallou est-ce que nga ne que Balla am na entraînement ci combat bi mu bëri nii. waaw. léegi lan la war a yokk ci entraînement bi lan. gis lan moo ko manqué. ah moom sama xarit la. waaw. Wally Seck. waaw Wally Seck la. Tabu Mbaye. sama xarit la. Olas Keita sama xarit la. Fallou ñëpp la. Talba ma Fallou man. ni naaw. Talba. Talba Mbaye. Talba ni Talba ñu ñaaw Talba ñu ñaaw ñu ñàkk sànni ñu naaw neex a waaw cum dégg loolu waaw waaw mais Fall looy man waaw mais Kéba Kéba rek waaw guddaat Roberta de Guilherme. Keba. Keba rek. Mooy jugee def. Keba mooy def. Keba mooy def. Talba. Wóor lay def. aja ko ñu lay jaajëfal dégg nga ñafal mbële. ñafal ñafal. Aïcha Fall lu kontaan nañ dégg nga.